jërëjëf dama bëgg ñëw tontu tontu bu gàtt. waaw man du tontu ci politique damay tontu ci ay chiffres. Macky Sall. bi mu jëlee nguur gi ba tey. Hmm. waaw lim fi liggéey ci côté finance ak économie ak croissance économique amul benn nguur boo xam ne liggéey ko.